de xamul dara dafay naxe uteg mbay ak numbe yoruñ dara di ko ñafe Amadou Kumba dañ leen a naax mbaalu ki ma ko foog am na paa bu demoon bay am xar fayee ko bor toog Jofaal Tabaski Jofaal Jofaal Tabaski Jofaal Jofaal Tabaski Jofaal waay waay jëri <laughs> bu ne jaar na fi feebar wokkatu wokkatu jaar na fi nu xeex ak moom mu dem koso kosa nu xex mo mu dem yooyu yëpp dara def ma ci lu problème gi ma muñ te muñ moy gi nga gi nga xamni mo ñew rek mo ñew rek songu kok mo ñew rek songu ginaar yi. waa hmm? yaay to xana do julli. kay ba fi nga xam nak dama toogam dama taxaw. <laughs> ki setan seytaan boo yow. nga ne nak dama tok mais maa ngi di dem man. xanaa xamoo ni heure julli jot na doo jug nga julli. soxna si bis boo taxawee ci sama wet naan ma julli rek bul julli rek jaamul yàlla danaa la daggal dama lay wax rek neuf cent sa neuf cent cinquante saaga yi ndey danaa la ko saaga. damaa am lu ma naqari. waaw kay. waaye lan moo tax nga ne doo jug nga julli. xamoo ko. ndax lan. doo jullit. lan la na sumu borom defal. koor gi da gis li ma def fu ne julli naa nan laa mujjee. waaw yow nga yaakaar ne sunu borom fay la ci man li ma la defal. nga yaakaar suñu borom fay fay lo ci loolu yow man su may liggéey yow yaa tax may liggéey kan moo tax may liggéey bu doon man man dongu la mën naa bañ a liggéey xam ne sama indi dinañ ma defal mais lu ma am bokkoo ak yow mais jullit nga dangaa war a jug nga jaamu yàlla loola yëpp weddi ma xam nga yow tun sa merde ma ci dara xam nga lu ma wax moo nee na ku julli wala ku ko jaamu mu fay la man ci koor gi samay ganaar ah, ana li ana li ma jaamu yàlla samay ñaw samay tiis samay marakis yàlla mu ne eh. jaamu leen ma ngeen ñaan ma ngeen sant ma ma dolli leen te yow xanaa dangaa fàtte sa xarit bi dëkk ci ginnaaw poulailler mi lépp a dee yow xanaa kon kooku dafa war a gaañu man quinze laa dee quinze ginaar poulailler bi lépp dem yëpp a dem kay oh, on noonu de ca kooku bu fekkee te mii naa ba tey ko non kooku bu ma doon moom diine ji dama ci abandonné man man kay tur bi xaw ma lii lan la. waaw nijaay gar ni naaj bi nga sànjaafu nii ne gënu dëkk lu mu doon. moom bu dee nii lañ nar a tabaskee balaa ñu caa yegg ñëppay faatu. nekk ci réew mi di dang-dangi rek. di lijjanti rek naaj wi tàng-tàng woo xam ni te garab yi daa mel ni lépp la nu gor. amoo fenn foo mën a féexloo. yow foo demoon ak looy lijjanti. ah tabaski jii di ñëw day waar réew mi amul dërëm. yow ni da ba nga fekk tabaski gi yow ñaq wu rëy yi nga fi indi sa jaagu mbaan bi ni ganu dekk ak war a diga mar ah, way wàccoo go am fo féex lu wàcce go way ma ngi ni di waj man gawal gawal ma jappal la bagage yi yanu ko dem keur ga bagage ya yi ñu bagage bi si nga naan am ah, mo yow ya gëna di te lay <laughs> di bagage yi du dara ñëwal nu nak mo da nga sonn yow dina la yen bagage yi ngay xuy dem alal la lu ci ne. eh du ma la ko yende ñu naan yéen a tina jëkkër ja bagage te saa may jaay nga ñëw toog fii. eh way waa koñ bi xool. xanaa kon nun ñëw ma man li may def dama koo ragal fenn du yaa ngi nii bëgg ma ba mu jeex tàkk ba senegal xam ne bëgg ma te dawoo ci dara kon ma lu ma ciy daw da ngaa fàtte ni ki ne la ba way dogo yaa ngi dégg am fayda ba way bànna njaay man du meema ñor yaay sama xasan may sa wokkata te fi nga wokk rek moo xasan jugal nu dem dama lay boot. waaw baax na loolu nga wax lépp neex na mais demal man dinaa la fekk. Eh, man dama laa bëgg ah naa la ba àdduna xam ko xam nga ñaara ko xamul xar yi di dox ak xeer ci suuf si te man dinaa leen ko yëgal te nu mu boo jugul ma yóbbu. Eh, eh, doo fi jooy ah. jubal bagaas yi doo ko yóbbu naa ko yóbbu naa wut jakarta bi moo ko yi nga takk. te nga ne da ngaa sonn boo de ko mar amoo loo wàccu. sonn lii nga takk. sonn rek wàcceel wàcceel lii waaw doxal yow dib kër te man maa ngi bu fi joy de demal keur ga rek. yaa ngi ñëw ngi di ñew damay jël jakarta tek ci bagage yi toog way sama nijaay ni muy doxé mel ku yenu aduna yel buy dem nak waaye soxna wa wa wa jël jëtu garam bu bi waaye ki baadu daanu. gi da bala tabaski ge ñew man dina ñak ci kër. gis nga ñi def lu baax ci àdduna xooluñu ci yalla ñi jaamu yalla xooluñu ci ay lu leen suñ borom fay dañuy def ta yàlla rek ka tax lu leen suñ borom fay nag mu fekk leen ci ñi def lu baax ñi ngi def lu baax ba tey musoo gis ku def lu bon am lu bon ku def lu baax am lu baax donc loolu kese yow daal mën nga saa boo waxee rek nga laax ma ci mais yow su lay la wala ma lay yow boo waxee rek te laaxoo ma ci amoo ndamal jeeg lii ah. baa jàmm la waaw yaay yaay bëggal jàmm nag waaw yow mii doo ma bàyyeeg yaay fan nga ayee sa ñaari fan bu ma wax ak yaay kat nag. ba may ay ngay ay nga war a xam ne yaay seqatuñ ko. yow eh yaw laay waaw kon kay kon kay man maay jëkkër Mor Sow foofee rek bi. ndem taxaw da ngay ma jollu mbeer ay baat muy jël. ma ne la li nga liggéey rek lañ lay fay mbépe yow yaa a yabaate ñëpp yaa gën a fuuy ñëpp. est-ce xam nga li ma la wax. maa ngi julli ci yàlla na yàlla nangu sa julli yàlla na ko le yàlla nangul. saytaane bi nga doon ngay ut foo farak foo baax. gis nga yow. lan la. sa xol a jeex. doo ma laaj lu tax. lu tax dama indi gone gu ndaw teg ko ci kër gi. waaw yow nga perte réseau sa yëpp ni ngam ngay coog nag di see yow da ngay jàkkaarloog ni sa fauteuil jàkkaarloog moom nii ñu defa ni yow ndekete yow boobu télé bi ngay ja nga toog yow di seetaan sa fauteuil yow lii la dal yow. moo tax sa réseau bi waaw dafa wàññeeku yow pour top. yaa ngi am baa ci suuf hmm. te xam nga lan laa lay jëga sa yëfu naafeq yi nan ma ci génnee ngay ut koo a ak koy aj ji man sama réseau fu mu dem man sama réseau xola mu ngi en haut déggoo ma de damaa bëgg na nga régler li ngay naa man man ma man tey ma <laughs> jël briquet wala waawe wuyu ma boo waxee nag la tàngal sama xol bu ko seddal ndax yow teg nga ma sa mbagg léeg ma jaawle def ne sa ween nga ma teg problème ween nga am yow moom problème ween nga am nañ dem ci gatsa gatsa gi yow nañ dem ci gatsa gatsa gi ba mu neex la yow da ngay xaar du takk nga keneen ne ko dëj sama diggu bopp bi mu may riitambal man suñu borom mi <laughs> tey maa jënd almet ni ko suñu borom taal ma wala ma jël birike ni ko suñu borom rey ma jaru ko man <laughs> ma reculer romb fleur yi mbëkk karo yi wala miir bi uh-huh. wala man boobu dafa oyof bul taar sa bopp bul jënd almet bul wax ak sunu borom mbëkk bum mu ci fekk ndax mën ngaa gaañu toqantaan te dee du la ci fekk yeggal quatrième wala huitième étage nga coppeelu boo dam loo wax ma yow kon ma yow kon dégg ma faatu yàlla aw ngay wër ko ko xottam yi mel ay nopp dégg nga man xoolal maa ngi naan sax naa mbëkk miir bi <laughs> wala daal xoolal fa ma yéegloo imagine ma jógee faak sama daay sama maanaam ma doon ñëw xam nga ba ma juutoo ni yi ma yor dèjà day lang ñaareel caay ji di doog a ñëw nag man man kii wàcc paara la ma bëgg a def loo saa boo bee jiitu bàyyi dèjà buñ dootu fa des na ne wax na dëgg ndax boo mbëkkee tuutee naaj te boo jógee ca kaw foofu ma faatu yàlla directeur sëñ moo du mën laa téye kenn mën laa ñaanal lii ko bu doon koy xaroon wax la lii kenn dootu xaru Bachir beeg chaque après boobu nga mel ni waxale yéy yéy yéy pro problème ya problème ya démarré na kii nag moom kii lijjanti lépp mon amour bu tabaski ate butum gale, butum gale, ya mata di butum gale. Apa anak anak gini anak anak. Iya, begede lah merlo, di dop dop lo gitu ya, nomor akap. Wana nak. Ya sabit, mau gitu. Aku hanya untuk noni Juga ada di akap nala, togal non rek. bayar punya untuk Bayar punya untuk nyam. Ya, ya kan gak ada man munu ma tok fi man Bayar. Dama yow mënoo ma waxtaan dama laa namoon dégg nga ji. papa namoon naa la de nu ma la namee nii. maa la gisoo ma yow ci butum nga de. non yow moom. Mhm. boo ma jegee rek jàmm ji. ah mais noonu la nag man ta ñàkk des fois xam nga may bégal chaque jour. waaw ah, daf yi baax ma lay hmm? tabaski bi ñëw na de. xam nga lu si problème. waaw sa baaram ma xool sa baaram fi dégg nga fi tamit nag. lii comme tournevis de. ah mais tamit nag des fois nag mënta ñàkk wala. Eh, waaw waaw foofu mu am. Ah? foofu mu ngi noon nag. foofu sama point moo la ngoog nag. waaw ah, noonu la xam nga instant nii. Mhm. ñoo jëm si tabaski bi. Mhm. ah. sama yaay maa ko war a wutal xaar ah, war a xotti sama papa. Mhm. sama ñetti rakk yi. man rek war naa sol neuf. Cheikh fii boo fi jàppee di wax lépp dama naan waaw du ma contrôler. waaw ak ma ne tamit sama xaru tabaski. sa xaru tabaski sa xaru tabaski ndey sa xaru tabaski léegi. yow fii la yow koy reyal xar fii. maag yow. Ah, julli fii maag yow. waaw maag fii la jullee sama papa ñoom seen ñoom seen kër mais fii maag yow la wala. yaay. ah sa bi deex na de yaay way lii yaay noo def yow waxuma la bu ma waxati yaay maguma la fi loolaan ma yaay dangay aye sa ñaari fan may aye sama ñaari fan sama taaw magul sa taaw lu bari bu ma tojal te yow boo amoon jom ci boppam fi ma la teg foofu rek nga may teg waaye nag amoo jom nga jom daa xëy nga gont waa baal ma maa la tey naa ngi man jàmm ak salaam doo lay doyee juste rek dama la doon wax sama nijaay Fall Ndéné comme tabaski bi leg mu jégué ci bisi jégué ci na ba pare légui ba xam waxagu la ci dara. <laughs> mu lay jox say ñaari fan bu fen joté yow lay fen bu sos joté yow lay sosal. ba paré yow nga am osé di mag la man lu sama yoon bo amé loy wax nga wax ak mom kon nan nga gisee. argay mi xaalan naa. waaw baax mi xaalan yow boo ma waxaatee yaay dinaa toj solu sama xol bi maanaam maanaam yow mm. euh, lii nag question bu léger la rek ay ñaata am sa àdduna daal sama àdduna waaw ñaata far est diis nga amoon wala ba ma amoon tamit nag nii yàlla tere yow kasa yaa fi nekk waa léegi nañ wax léegi ci bi tamit. man ni amoon mhm. euh, mhm. papa. yow oh, xam nga xam en tout. Mhm. ay bi nag ah, xam nga ne man moom lu ma laaj nga jox ma ko. bu leer. macha allah. aucun souci. waaw. huit cent mille rek baax na. huit lan cent mille. xam nga loolu dinaa si man a def sama yenn achat yëpp. huit cent huit cent mille yaa sa ndey ak sa baay ak sa ñaar rek. ci julli ji xanaa dafa ndaw. non ah. ndawul bariwul di. ah. huit cent mille. ah man def dëgg yàlla huit cent mille moom su ma ko amoon rek baax na ins bi nii. amul problème. amul problème. Ah, yow moom loo wax moom gëm naa la ndax yàgg ngaa def wala. jox ma lex bi. kontaan naa. xam nga nu may def toogaay jeex na. ah. <laughs> foo foo jëm. je t'aime. moi aussi bébé. Richard. lan la. su ma xool sedd. dafa sedd nii. Ah. dangay dem ni mbaa si kanam di nga ñëwaat ma defal la baay daa jar wax maa defal la noddantiwaat yaram mi tuuti ci kanam amul benn problème baay bu baax xamal la la bëgg nu bootante comme ni nga daan def lu ko raw nag laa lay defal bii paa ñëwee baay lui an ni qui nous ni huit cent huit cent nous, nous, n'y ñenn ni sax ay mënu mais qui, qui famille la aay le famille famille la Mais il dit qu'on a fait faru rap, famille bi la waaye nag jar na ko de lex yi ko moo lex bi ko moo teen lex bi comme karawu ñombar soo ko ci nit teg sa leew yi da xam ne kii waaye jar na ko jar na ko na ko lijjanti te léegi ma ñëwaat mu defal ma salle de bain salle de bain Anita Anita Daimaran, ah, yeah, yeah. buta juk se de jahle. Aram Zeyna lale No, ya fatu nyoy dom Anita lo mu antese. Waya. Yaa ngi toog sa calcul rek Lu def? ini dañ lay amel parce que dum la fay. Am ñoo xamantene mom la yorale ba. Bu la bo leen deewoo dum la jël. waa sama papa fu mu toll ci man. ci lan noonu. tabaski bi. moom fàttewuma ko démb rek barki démb rek maa ngi ci waxtaan ak sa tante waaye tuuti des mu ray ma ci kër gi. mënoo bàyyi ndey caabi moom mais boobu nga xamante ne daa sikk ba dof. kuy ndey caabi. ah sama tante. yow eh arrêté bu mu amati de yow xàmmeetuma la de yow yaa ngi may bëgg jaaxal de bu mu amati nag wax naa la ko.

man man man man fii moom couloir bi la yàlla waroon a jaarale ouragan rek man mu mu yóbbu ma fo ouragan fu ma wàcce baax na fu ma fu ma ouragan wàcce baax na ouragan sax dama may ba nu julli <laughs> ci jàmm mu doog maa yóbbu engagé <laughs> naa nag engagé naa de engagé naa engagé naa

tabaski jub seede jaaxle arama zeynab duñ laale ndongo yëg yaa faatu ñooy doom yee andi talo yor mu encaissé yee tey sëriñ Gédé xamul dara dafay naxe uteg mbay ak numbe yoruñ dara di ko ñafe amado kumba dañ leen a nax mbaadu ki ma foog am na paa bu demoon bay am xar fayee ko bor toog jëfaal tabaski jëfaal